waaw waaw ay saaku xale ay rob ay baax ay ooy ndaw eh. anga ne woy salaamaaleykum suñu waa kër si yaar naa nañu baax Ousmane la Ousmane gën kaa xam si Lébu Ndoy waaw Lébu bu marché bi man ay yére xale laay jaay quoi yére góor yére jigéen yëpp a si génn waaw paysage waaw waaw ubbite école bi mu dëgg yaram dañ siy sant yàlla bu baax parce que lii la quoi gars yi dañuy ñëw jënd bu baax a baax dëgg yaram dañuy ñëw jënd bu baax a baax dañuy yàkkamti événement yi jot xam nga rek si lañ mën a forot forot lu dara xam nga rek jox suñuy parents way jaay bi waaw jaay marché bi marché lu may moom instant bi ouverture yi moom mu ngi dox franchement mu ngi dox. waaw ñàkk xam la woon bu ñu fa doon di ñëw di dem di jënd ci yeneen boutique yi mais lu ñuy jënd si boutique yëpp mu ngi fii ci fëgg jaay bi mais wala yu ko dàq sax yu baax da ko fiy am fëgg jaay bi yu raar ay marque ay affaires yu rafet ay tubéy yu baax da ko fiy am moins cher que boutique yi. fëgg jaay bi nimmali jaboot la fëgg jaay bi yomb na fëgg jaay bi amul problème boo ñëwee di jënd dañ lay jaay jaay bi du cher du def dara kon boog moo tax jaboot yi bëgg fëgg jaay bi. waa moo gën a moins cher kay. waaw waaw waaw jàppale ñu bu baax a baax ndax mooy sakkanal yore xale yi waaw waaw moo tax ñu taamu ko te moo gën a yomb waaw qualité bi tamit mi ngi ci daa ci am qualité bu baax non ah, ba ba matière fëgg jaay ku ko wóolu da koo xamul rek mais ñi ko xam ñëpp xam nañ ne fëgg jaay dafa baax original ñun kaw ak suuf kaw ba ca suuf dàll lépp fëgg jaay la ñu sol ca dafa baax non non amuñu ci benn coono ñoo client yàgg nañ amuñu benn coono amuñu ci benn problème waaw waaw période bi moom franchement moom mooy suñu période noonu ñun jaaykatu fëgg jaay période bi la ñuy xaw a jaay tuuti quoi mais yeneen événement yi moom ñun yoon noo ko ci dun waaw waaw waaw ah, yooyu moom ay tabaski ay korite ak yooyu noonu yooyu moom santiruñ ko fii ma taxaw nii jënd naa fii lu mat ñetti abbaaya ci moom mii waaye lu ñu jaay original la lu ñu jaay lu bon bëgg jaay bi boo ñëwee yëree xale dafay yomb ay jiin yëpp loo fi soxla dafa yomb loo fi soxla rek dafa yomb te jaboot moom lu koy dimbali lay wut. ubbite école bi moom fëgg jaay bi jàppale nañu moom jàppale nañu bu baax a baax ndax man ci laa jëndal samay sët ci laa jëndal samay doom kon ba fëgg jaay bi moom amul benn problème ndax yu original yu baax lañuy ñuy jaay waaw